Mamour Diallo rek lim la mën a jox ci ay millions kenn mënu la ko wax. te xoolal le mec le mec il m'a forcé mu am benn conversation moom comme si moom daf may jàppale rek nee na comme si ce que xam nga loolu. moom moom moom moo tëgg lépp ah. moom moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp ma wër ba gis ma man xaw ma woon kan la mais dafa si duma ko waxoon ne am naa benn cible boo xamante ne le dafay dem di koy seekat moom rek.

est-ce que ay nit kenn et tout ça ñoom ñoo ma wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def say ni doom déjà loolu noonu c'est benn affaire bu gaaw gis nga nag loolu rek loolu noonu rek. ce qui est grave. luñ ci mën a liggéey et pourtant am naa ci.

déedéet xam naa. kenn xamu ko parce que. bi nga am sama papa mosuñu wax mosuñu wax lu jëm bi confiance bi nga am ci man c'est-à-dire li nga mën a wax man. li nga mën a wax man mënoo koo wax ak kenn te dama lay wax confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam ne lu ñuy téye la rek denc. voilà parce que nit il faut mu am ku nekk ci wetam dimbali ko comprendre nga bu baax. man doo mën a comme ñeneen ñi.

loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la. ñun ñëpp aw ma problème man bu fekkee ne man man d'accord naa bu fekkee ne dañoo wax ne benn dinaa fa fakkee bu ñu waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte. bien sûr. bien sûr dañ koy jël dama koy jël. mais nag day après day dëgër ni dañ koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu ñëpp la précoce. fii day sedd day sedd guy ba pare ma taal benn kilo xalaatuma ko sax lu leer laa loo xam ne seereer nga xamoo ki am na loo xam ne su fekkee ne doo dof da ngay xam lu xew lépp dégg nga waaw mu ngi noonu te li xew lépp xam nañ ko ah loolu mooy problème yow mii nday mbili gi nga xam ne yow yaa yow yaa waral coow li yëpp ñu xam ne coow li yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards dañ la ko war a jox aji déjà tey dinaa leen tiital parce que je, je retourne vers François Hélène Gueye pour lui dire que de, euh, samedi ce incha allah dañ def live waaw léegi nag man des révélations yaa ngi dégg waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da toog ne leen dama bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à mais yaa ngi dégg mm-hmm. soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay kayit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax dafay nekk mu mais ñoom man xam na xam na xam na xam na xam naa leen ay sànqeet la ñoom ñoom te ñoom xam ils n'ont pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko. ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends dinaa photo benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. su ma su ma su ma su ma la ko waxee sax je vois pas mon croire. ñii di ay doomu aadama moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamuñu lépp lu ñuy def xam naa ko. dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqari dafa jot ci taabal nga ne leen yaa may dégg. terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille. attends attends moi je moi ces ces ces ces gens là xaw ma ay nitu lan lañ. waaw léegi nag. mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ne ay waxu neen la rek comprendre mm-hmm. ba pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la garde corps jox la kër gu rafet pour ngay ci kër gi di nekk ci jaaw nga xam ni belle vie lañ lay dundaloo waaye belle gi am na lu ko lu ko gën. Mm-hmm. xam nga lu ma nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp. Mm-hmm. te mën nañ ko du dëgg. Mm-hmm. Ah, foutu, un peu pas avoir Ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus. Ah, Au cas où on va des dangers. D'accord, ma mhm. ko Je jour on a recevoir va. D'accord. ok. Inch'Allah. parce qu'il faut que quand même.

laa nar a wax yaa ngi dégg ñun lay def dañ lay bëgg a liquider dañ lay bëgg a liquider parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee tas àddina mm-hmm. parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence dafa ne benn kilifa lañ am ñu ngi koy déglu man nii lay wax. Cheikh Sampa woo na ma téléphone ne ma bul def loo xamante ne bi yóbbu ko loolu daw na ma. donc léegi nag ñoom Maître El ak ñooñu leen parce que affaire am mu ngi ku si takk képp ku si takk sa affaire mu ngi baax sincèrement. xam na ne moom Maître El xam na ne li nekk yëpp ay fen la. mu ne may may di lek, léegi ñu koy jox ñu koy jox moo tax mu ne léegi nag nday mbilli gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la topp lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox allo ma ne xam nga xam nga yàlla moom tey su doon wàccee mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk rek ah ndax man nekk naa complice ak yow toog xam te noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugal yàlla moom kenn xamul du jeex. mais mais mais attends, il c'est-à-dire. Euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo mm-hmm. fexe ko mm-hmm. loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la wax loolu araam na wala araamul man muy doomu sëriñ te jàng kay xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar ne àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yowmal qiyaam kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal gu dul jeex la fala imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci musa teggi sa loxo da ko ci teg te safara si yi ngay gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira Mm-hmm. sepp nañ ko ci juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar téeméer mooy mooy set mm-hmm. Udah bul tiit arko baax na ya ya nak léegi-léegi nga jàng ñu jàngal la ci mbir yàlla parce que xam nga nit doomu aadama day nekk ci àddina te du jàng du jàng yàlla su jàngee yàlla nag ñu koy wax ci yàlla dana am lu bëri loo xam ne dina ci bàyyi ya xelam mais nag